soixante mille yoo xam ni moom dañuy ñëw consultant consultation mooy koo xam ne kii day ñëw ñu jox ko rendez-vous bu ñëwaat yoon yoon consultant mooy kuy door a ñëw moom dañ ci lim toll ci soixante mille bu dee ci wàllu hospitalisation am na fukki junni ak juróom quinze mille malade moom la ñuy jël leen hospitalisé ci atum 2018 janvier ba décembre ci wàllu opération itam ñu ci opéré quatre mille malades ci césarienne yi fi def mat mille six cent césarienne yi jigéen ñoo xam ne bu ñuy am doom loolu la ñu opéré foofu la ñuy yóbbu hôpital Matlaboul Fawzeyni loolu nag euh, bu dee analyse yi dem na bàyyi ay soixante mille analyse yoo xam ne dañ koy def par at mu doon activité boo xam ne bi activité bu am importance la ndaxte mooy bërëb fajukaay bi gën a mag ci diwaanu Diourbel donc lu fay ñëw bis bu nekk daanaka jéggi na dayoo te itam ñoom ñi fay ñëw ñëpp ñun suñu warteef mooy fexe ba ku ci ñëw ci wàllu euh, wér yaram jafe-jafe boo am ñu fexe ba saafara loolu nag daa laaj ay moyens yu bari yoo xam ne bii ci wàllu infrastructure lay nekk maanaam ay tabax laaj ay moyens ci wàllu équipement laaj ay moyens ci wàllu ay personnel ak yeneen moyens yoo xam bii da koy dajale pour mën a liggéey mission boobu te maanaam ñii ñëw ni ñuy soxla xañ na réew état bi nga xam ne moo koy saytu ak ñu ñi nga xam ñoo koy liggéey ñu am moyens yu doy ñu mën a saytu te fexe ba su ma laat ñëwee nga fexe ba bu dee dafa mënta dox nga jëlee ko bërëb bi yóbbu ko bërëb bële ndax naa pousse-pousse loolu dañ ciy am importance kon nag vraiment bu ñëwee euh, xalaat loolu ba laaj ko ñu jox ko mu am lu mu ci jël indi ko ci hôpital bi loolu danañ gën a yombal waaw maanaam dem beeg dikk bi ci biir hôpital si malade yi nga xam ne dañ koy yittewoo kon nag loolu wax dëgg yàlla am nañ ko cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye am na fu mu yem waaw ngi koy sant bu baax a baax te man mii itam fi mu laaj ndaxte hôpital Linguère laa nekkoon 2012 daan jógee foofu di ñëw euh, par weekend di seet si sama sëriñ seen Cheikh Ndigal Fall benn bis ma ñëw ba fii ci garab bi fekk mu toog. ma ne chauffeur bi droitel mu droité ma ñëw nuyu ko. ndeysaan di présenté wu. ñu ma. ndeysaan wala maa ngi fi ñu wax Ibrahima Mbeng. Ibrahima Mbeng dama jël numéro am. Mhm. gën di gën di nenn gonte. moom ba léegi maa ngi nenn gonte moom. yoon yi ma fi ñëw yëpp itam. Mhm, ci Ibrahima Mbeng lay jaar. ba ci laa la xàmmee yow. ci laa xàmmee itam sëñ bi. ak uh, yeneen bëkk néeg yi. loolu di dox ba. ñu jëlee ma Linguère yóbbu ma hôpital régional bu Louga ndeysaan 2015. 2015 mais kon ne di ñëw fii di ko siyaas. ndeysaan ba 2019 mhm. janvier février 2019 beneen décret jëlee ma octobre bi ba indi fii octobre kon nag boobaag léegi. Mhm. maanaam ñëw ñoo koy nemmi ñoo koy nemmali ak jaxasoo bi nga jaxasoo moom. Mhm. man yokkute laa ci gis man sama war a bëgg. Ah, kon wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant baax. di ñaan sama borom guddal fanam wéral cëram ndax de sag la ci yoon bi itam ak ñab ñag la ci yoon bi gis nañ teraanga ak sag mu suñu xel dal na suñu xel seet na ginnaaw ñu ñu koy dégg négocier ngi sant bu baax a baax di ñaan sama borom guddal fanam wéral cëram yàgg la loolu suñu kanam ba yàgg moo digal yàgg yàgg yàgg ñu jërëjëf Mbacke hmm. ba léegi maanaam malade yi fi daan jóge ah, di dem di dem soow ah. waaw wàññi ko nag bu baax a baax li passé juróom dong moo ci jot a dem moo ci jot a dem malade fu euh, Touba xam nga si bu ñëwee ci lépp na ci taxaw jigéen bi am doom ñu war ko opérer yëpp daal bu sa yàlla koy jënd léegi li mu ak maladie jóge kaw la ak Diourbel fii lay ñëw buñ léegi wàllu mairie carrelage bi yëpp defal na ko cat gi yëpp normal waaw liggéeykat yi gën nañu yëg seen bopp bu wax ci ci ci hôpital bi hmm. waaw daal waaw xaw ma ne seere ba social waaw soixante-quinze mille social yoo xam ne ne ci wàllu hôpital bi ñoom ñoo ko jël dimbale ko ñëw di doole yi ñëw ci hôpital millions millions cent quinze millions daal moom daal bu fi nekk léegi mbirum liggéey bi daal sante moom Touba moom yokk def la ci gis waaw dañ ko ñaanal daal suñu borom gën koo taxaw mu taxaw ñëpp ngi ci waar bi am na taalibe te vraiment ñëpp ñu ngi bokk benn nekk benn jàpp ci liggéey te lépp nag njiit bi moo tax dañ ko a baax parce que Touba lu bëri ci spécialité amul foofu lu mel neurochirurgien am nañu ñu mhm. ko indi ñu maanaam docteur yi def rajo scanner yokk na ci yeneen ñaar mhm. docteur yi faj maanaam ñuy opéré ñun ñëpp lim yokku na salle opératoire yi nga xam ne dañ doon toog man mi maa ubbi hôpital bi ci bi ñuy commencé fii ak Fallou Diop mhm. maanaam salle opératoire yi ñeent la woon léegi boobu yóbbu na ko ba ci juróom-benn yokku na ci yeneen ñaar ndax dix malade yoo xam ne war a am doom war a ñëw war a mucc ñu jële jël jële yóbbu ci ay Jurbel ak fu nekk loolu amatul léegi Jurbel ak leen di fii waaw ñu fay liggéey ñëpp seen bopp maanaam appareil yi nga xam ne dañoo manqué woon yëpp nañ yu bees yu andi andi fi jënd maanaam daal mu ngi ci liggéey bi mu ngi ci waar bi daal gën koo yokku ñaanal rek waaw waaw ndeysaan yàlla wax ci ak njiit. mooy li ñuy wax ci ak njiit. xam-xam mën na ko indi. mën ngaa jàng jàng ba. màcc ba nga jàng kenn mënu nga doon jiit ngir loolu. ngir njàng mi. waaye nag bi njiit ba noppi nag. yàlla def ci xol bu yaa ngir mën a yàqali lu bari ndax fi ne am na loo xam ne moom moom mënoon na cee xaar état moom xëy na boo ko ci xaaree mën naa yeex mën naa gaaw waaye mu xam ne xam-xamam la ak it nag yéene Serigne Touba kon dañu feeñaale waaw indi gi ñu ko indi fii wóor na ma a bëgg-bëggam loolu bu ko amee na kon da taxul mu bëgg ko faaw feeñal ci lu yoone loolu ndax tur wi nga xam ne moom la hôpital bi yore dañ ko ko tuddee rek. hôpital bi mën naa yu bari. am na loolu conseil bu ñëwee nag lépp ngir mu mën a yomb ci ñëpp. ba lañ waroon a jëggaat yi mm-hmm. lépp yàlla dogal moom ci ay xalaatam. Mm-hmm. xam-xam bi ko ak ak bi. Mm-hmm. nga xam ne yàlla def na ko ci doomu aadama xam ko di ko yàkkali ci ci ci xam-xamam. melokaanam ak bu waaye nag defee na ko nag ko mat. mu ngi dëkkub sëriñ Tuuba ngeen ko lii ngeen ko seeral ci këram mm-hmm. sëñ bi de si bëgg na ci loolu ndax ci misaal mm-hmm. nit ki lu mu mën a am ci àdduna mm-hmm. lu mu mën a toll bu wérul rek mën na koo jël joxe ko ba mu jeex ngir am ko képp koo xam ne nag loolu yàlla dogal na yaa ciy taxaw ba nit ki waroon a soxla war ko wuti war cee sonn nga fexe bu am dëkk bi ndax dëkk bi loolu la laaj ndax dëkk bi toll na noonu ci ab tolluwaay waaye nag borom bi ndax lu dëkk war a am rek mm-hmm. dëkk bi na ko am mm-hmm. te du téere boobu yi ngeen ko tuddee mm-hmm. loolu war lañ conseillé sëñ ñaan na ci lépp kon dafa mel ne yàkkale li muy yàkkale rek li sëñ Tuubaa di yàkkale ci nit rek lay fay kon teew fay sax moom ci boppam am nga directeur la mënoon naa yem ci directeur rek waaye moom ci boppam opé day opéré te opéré day consulté amul loo ko fekk fenn ci benn béréb ci senegal directeur ba wàcc sol blouse am talaata àllarba muy seet malade te ni nga ko ci war a seetee la ko seetee du xool ne xiif na mar na nangam da ciy nekk ci wàllu rek bu opéré jotee mu ngi sol pour ñëw opéré donc loolu Sénégal ba Sénégal da moom dog moom moo moom moo ko ministre de santé Eva Marie Coll Seck maa toog mu toog boobu nekk ko mu ne moom mooy meilleur directeur ci Sénégal kooku man naa ko wax sa sa sa kon donc Touba lu mel nii la doon laaj ndax man li wax ak yow de man bloc bi ñoo ko ñëkk teg ma la loo muy falaw dii la ñu teg donc li nag yëpp xam naa ko ci wàllu sax ci wàllu hôpital mm-hmm. maanaam maanaam xool boo xam ne rek pour Touba li mu laaj mm-hmm. mooy junni bi daaw kooku moom ngir Sénégal rek moo xam ne li ngay wax da ngaa gis lu la bett rek xam nga loolu bett la ñëpp waaw xaar dama nekk sëñ bi monsieur Abdou Karim waaw dama nekk sëñ bi non dama nekk sëñ Abdou Karim daa ngi dama nekk ci sëñ bi ñoom ci kanam. dama metti woon lool metti woon waaw moo ci